fi xew li nga peut-être mënoon naa mais comme depuis 2012 ñi ngi fi mësul am bo amé aussi euh, quand le président bi waxé joxé directive gis nañ né ministre de l'agriculture yoni na fi SG gouverneur ñëw na maire bi ñëw na kon ñop téw nañu kon c'est un peu rassurant ci biir lolu aussi ñu leen di xamal né liguey bi dina continuer comme ni mu meloon ndax y a plus de 300 personnes yi nga xam dañ fay daan sen doole amna ño xamné xam ne dañu wàlli sax joggé côté Gambie ak te wax deug neex yalla euh, ñu ngi ciy gis seen bopp ndax jigeen ñi fi nekk di liggéey dinañu am 6000 7000 par jour goor yi dinañ dem ba 15 000 kon ku mëna jël plus de 300 personnes di leen fay loolu kooku il a droit à la protection de l'État du Sénégal. D'après après li ñu gisagum li ñu wanagum nii yokku na ndax demba ci bopam ministre de l'Intérieur, recevoir lañu man ak mom kon tay bu ñu gisee ministre de l'Agriculture, gis euh, gouverneur kon xel mu xawa dal lay doon waaye bi des mooy il faut ñu autoriser leen ay porte d'armes. ay étranger bu ñu ñëwee

man ak mom ministre recevoir de l'intérieur qui taxaw pap bien ni à ma gauche mom moy le directeur de l'usine moi je suis leur transitaire et je suis chargé de l'exportation de tous leurs bagages et, et tout ce qu'ils font ici à Dakar